lépp lu mu bëgg a liggéeyal lislaam mu liggéey ko mu jaarale ko ci daaira muqaddamatul xidma ci fàttali muy daaira bi nga xamee ni ci ñoom la sëriñ bi jox ñuy saytu doxiinu jumaa tuuba ak armeel yi cheikh mouhamadul muntaqa mbakke xalifa général kullu murit gannaaw bu mu nuyoo ñépp jokk buumu mbokkoo ci lislaam digganteem ak mbooleem këri diine yépp jokk àqi dëkkandoom digganteem ak waa réewum senegal gépp ma ñaan ci yàlla mbas mii nga xamee ni moo nekk ci réew mi te nekk ci àddina bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu jeex takk gannaaw loolu nag Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit ma ngi jox ndigal képp koo xamee ni si yaa ngi julli ci si jumaa yi Touba wala jeneen jumaa joo xamee ni ma ngi wéy ci ndigalu tuubaa nga sàmmoonte ak ndigal yi nga xamee ni si moom lañuy bëgg lim bi ci jëkk na nga takk masque bu ñaareel bi saa yoo ñëwee ba ci buntu jumaa ji nanga raxasu ba set wala nga diwoo sel bu ñetteel bi saa yoo duggee ci biir jumaa ji nañ soreele taxawaay ci sàppe yi bu ñeenteel bi bu ñu jullee ba àggal bay génn nañ kenn kennoo génn bi te bàyyi buuxante bi bu juróomeel bi saa yoo xamee ni si ñëw nga ba si buntu jumaa ji ñu xamal la ni la biir jumaa ji fees na na nga wàññeeku ci xol bu sedd guyyu te dem seeti faneen fu gën a yaatu ci dul coow di am wala buuxante lii mooy ndigal yi nga xamee ni cheikh mouhamadul muntaqa mbakke joxe na ko ci jumaa yi tuuba ak ci mboolem jumaa yi nga xamee ni si ñooy wéy ci ndigalu tuuba mu amal ko nag ci tuuba mbakke bisub talaata fukki fan ak juróom-ñett ci aw koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum ñaari junni ak ñaar fukk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu